solos ndaje bi tey mooy ñun dañu sentir <clears throat> responsabilité <clears throat> bi nga xamante ni sénégalais yi am nañ ko ci ñun ba à travers tout le Sénégal ñu jël lu toll ci cinquante quatre mille deux cent soixante huit parrains jox ñu ko pour que ñu mën a bokk ci débat démocratique wu élection présidentielle je que signification bi loolu bu ñu ñëwee tamit toog di leeral ni ko pôle informatique bi leerale tey jii c'est pour tamit être fidel à ces gens-là qui jël seen ay carte jox ñu ko effectivement jël seen ay parrainage jox ñu ko mais je pense que liggéeyu euh, conseil constitutionnel mën nañ ko attaquer à trois niveaux premier niveau bi mooy ci tirage bi ñëpp xam nañu sax bi ñu nekkee xale booy def tirage même boo bindee ay tur ci ay feuilles di nga ko jël nga enrôler ko ba mu am forme ronde parce que loolu moom mooy wane la notion de probabilité nga xamante ni ñi ngay tiire yëpp li ñuy waxee en statique en statistique biais du ci am mais doo jël ay ay ay enveloppe nga bind ko def ko mel na kuy wote amul fenn ci Lonase boo gisee bu ñuy tirer ay boule la ñuy tirer boo gisee FIFA bu ñuy tirer ay boule la ñuy utiliser partout dans le monde ñi nga xamante ni ñëpp ils sont dans la modernité il sont à l'ère de la modernité bu ñuy tirer ay boules la ñuy utiliser parce que derrière en fait il y des probabilités yi nekk ci gannaaw et il y a la notion d'éliminer tout ce qui est biais loolu c'est un premier niveau deuxième niveau bi moom mooy yow nga defar benn logiciel ba nga xam ni amul benn sénégalais wala benn candidat bu mën la ma wax algorithme logiciel boobu loolu nag bu ma koy wax moi j'ai beaucoup travaillé la Banque mondiale boo xoolee pendant une vingt vingtaine d'années toutes les institutions financières yi nga xam ne dañ doon migrer vers des systèmes informatique ñun ñoo leen daan jàppale mais je vous dis daan nañu toog pendant six mois nga mettre les deux systèmes en parallèle pourquoi parce que day am ay anomalie parce pourquoi parce que day am ay écart pourquoi parce que day am différence entre yow li nga def ci fichier Excel yi nga reprendre ko sotti ko xelli ko ci biir logiciel bi mais nag ay extraterrestres mënuñu ñëw rek daldi nit ñi loolu dañ koy def et puis ci benn coup rek en deux minutes ñu ni ça marche comme sur des roulettes donc le résultat ñëpp gis nañ ko mooy aujourd'hui pratiquement boo jëlee candidats yi nekk ci les vingt sept d'ailleurs ci groupe bu vingt sept yi lañ bokk euh, les vingt sept boo leen jëlee mais c'est un nombre assez assez assez significatif de Sénégalais qu'on dise que nekkuñu effectivement ci fichier électoral bi te loolu je pense que c'est inquiétant à la veille aujourd'hui d'une élection nga xamante ni on a à deux mois de ces élections ou bien même moins ñu ni tant de sénégalais te ñun ñi demoon en toute sincérité dem collecter nos parenage nga xamante ne tey jii ñu tetee la protection des données personnelles noon nañu produire même ay carte d'identité pour wane ni ñun parrain yi ñuy jël à chaque fois on vérifie sur la pièce est-ce que ay électeurs lañu ou no bu ñu dul électeur ñu bàyyi leen parce que kenn dem élection yóbbu tamit ay ñi nga xamante ne du ñu ay électeurs donc je pense que aujourd'hui y a un travail ba nga xam ne am na ci loolu te logiciel boobu moom moo ko indi parce que kenn mënu la wax ni logiciel bi algorithme yi ñu ko defee nii la logiciel bi nii lay attaqué base de données yi informaticien yi demoon toog daanaka dama naan ku doon jaay gerte caaf sax mënoon na ko def mënoon na représenté foofu parce que dangay ñëw rek ñu jox la benn télé benn écran moom ngay suivre après ñu jox la feuille bi nga daal di jóg dem sa yoon booy wax sax euh, gardien yi nekk ci biir conseil constitutionnel ñoom ñoo lay évacuer donc je que liggéey boobu à à ce deuxième du liggéey ba nga xamante ni lu sérieux la aujourd'hui nag le monde mi ngi jàkkaarloog sénégalais yi tout le monde entier tey ñoo ngi xool Sénégal xool ba xam ndax recours yi nga xamante ni une trentaine de candidats def nañ ko te mu tegu tamit ci li nga xam ni cëslaay bi lu lu dëggu la parce que mënuñu ni tey jii ak quelques mois des élections fichier électoral bi kenn xamu ko kenn xamul ban fichier électoral lu ñu utiliser logiciel bi amul benn sénégalais bu la mën a wax nii logiciel bi man diagnostiqué naa wala audité nañ ko wala gis nañu par exemple algorithme mi ngi dox wala nu muy jëlee et mais dysfonctionnement yi tey dafa wane ni tey bu fekkoon ni tey ñoom ni ñu nee c'est des gens qui son qui ne son pas sur le fichier électoral boo indee normalement benn nit ba nga xamante ni mi ngi carte d'identité am inscrit sur le fichier électoral récemment mu voté ci ci kiiwu électoral mën na abattre en fait ñoom seen hypothèse yi ñuy def je pense que lii c'est très c'est très parlant boo jëlee kaw Dakar sur sept mille et quelques rejets ñun cinq mille yooyu ñoom malgré indication yi ñu joxe ci biir fichier bi ñu jox indication yooyu ak suñu ay indication benn la c'est-à-dire tu trouves le même numéro de d'identification tu trouves le même nom tu trouves le même prénom tu trouves le même discriminant ça veut dire ñun loolu dañ ko parcourir compter ko donc cinq mille et quelques sur les sept mille boo ko jëlee ñoom li ñu wax ak ñun li ñu joxe daanaka benn la am yeneen yi nga xam ne ñoom wax nañ ko te loolu effectivement ñoom indiwuñu par exemple boo leen neet kii tel carte d'identité nangam nangam cetera ñoom foofu vide amul dara lañ fa def te loolu muy mille pratiquement mille et yi nga xamante ni ci ci kaw Dakar donc loolu je pense que c'est assez critique dafa di masse critique aujourd'hui boo ko extrapolé ci trentaine de candidats yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci situation boobu da gis ne tey jii li ñu waroon def moom recours yi nit ñi def ñu bàyyi ci xel ñu mën a tey auditer tey ce système la boobu mooy bi ñuy reprendre données yi ak bi ñuy génnee résultats yi ñu mën ko auditer permettre aux candidats aujourd'hui benn audit indépendant mën ko def bu ko defee mu dalal xelu sénégalais yi parce que sinon daañu dem ci élection ba nga xamante ni ku ci nekk ay appréhension nga ciy demee te conseil constitutionnel wax dëgg yàlla moom mooy nag ci réew ñun ñëpp dañoo d'accord parce que en 2012 ñun ñoo ngi fi woon bi nga xamante ni conseil constitutionnel dafa permettre Abdoulaye Wade mu présenté wu mais ñun ñëpp lan la ñu wax dañuy dañuy dem campagne yi parce que tamit wax dafa am fu muy jeexee mais wax tamit bu fekkee dafa war a am fu muy jeexee mais foofu muy jeexee war nañu transparent war nañu intègre war nañu li ñuy liggéey tamit vraiment mu mucc ayib ba nga xam ne du créer ay jiix jaaxa ci xoli Sénégalais yi. man dama laaj suñu informaticien ma ne leen les enveloppes est-ce qu'ils ont été scellées enveloppe ñëpp xam nañu am na form bu ñu koy scellé mais enveloppe scellé que du nga collecté rek yam ci du nga collecté rek yam ci. conteneur boo ko selee xam nañu ni ñu koy selee enveloppe sellée ñëpp xam nañu lan la mais demeewul noonu enveloppe boobul ñoom est-ce que ubbi wuñ ko bëri na ay candidats yi nga xamante ni des fois quand tu interroges système boo laajee nga jël ñi nga xamante ni dugaloon nga leen nga laajte ñoom liñ la jox ñoo nekkuñ ci biir. ils ont pris par exemple par région jël def ay tests jël cent personnes à Louga def test recherche leen ci li ñu conseil constitutionnel jox mais fekk ñu leen ci fichier bi léegi ñooñu fan lañ nekk. xanaa duñu ñëma logiciel bi moom moo leen lekk ñooñu koy xanaa soit daa ñu nekk doublon wala ñu nekk ci ñuy rejeté yi wala ñu nekk ay doublon interne mais doo leen fekk fenn donc loolu je pense que ça prête à équivoque il est temps que sénégalais yi quand ñu sérieux par rapport ak li ñuy def parce que élection présidentielle c'est vrai que ñu bëri da ngay dégg ñu naan candidature yi dafa bëri mais c'est pas un problème candidature yi li ñuy ñaan rek mooy ñu teg leen sur un processus ba nga xamante ni bu transparent la ba nga xamante ni su ñu demee ba ci cëppaandaw ba képp ka nga xam ni nee nañu doo bokk yow sa bopp di nga xam ni wala fii laa lajjee fii laa amee problème wala fii la ma toog xaar beneen mais li nga xam ne moo normalul étape parrainage moom mooy étape bi nga xam ne on exprime sénégalais ñoom ñooy wax ni bëgg naa diw bokk bëgg naa diw bokk mais quand il y a une masse critique bu bu bu bu dem ci sur le terrain wute ay parrainage am man ku ma xam Mansour Ndiaye xam ni j'ai travaillé pendant vingt cinq ans la microfinance ci ay réseau ci biir Sénégal ci Casamance ci feneen donc bu ñu indi ay parrains yi nga xam ni ñun ay nit yi nga xam ni même dans la commune de Banguère à Sédhiou ay communes yi nga xam dañ fa yàgg liggéey am fa suñu ay nitu bopp indi leen ñu ni ñu ñooñu ay ay ay ils sont pas identifiés sur le sur le sur le sur le tri euh, sur le Louga Louga rek Louga bi ñuy wax man Louga j'ai travaillé pendant dix ans à Louga dix ans dans des dynamiques paysannes dans la microfinance dans des institutions bâtir fa tabax fa lu nekk ñu ne ma Louga benn nit bu valide moom moom moo moo moo la à la à la limite c'est ça fait rire quoi ça fait c'est-à-dire que da ngay indigné wu à un moment donné mais des fois tu as envie de rire lu mel noonu nag je pense que tey on interpelle le conseil constitutionnel ak autorité yi nga xam ne ñoom ñoo yore en charge en fait du processus électoral parce que tamit waruñu plonger décider rek ay administre ñi nekk des gens dans l'administration décider plonger le Sénégal dans ce chaos électoral te lii nag duñ ko bàyyi lii je pense que regroupement bi ñu def tey jii nii ñun ñëpp au-delà des recours yi ñuy def individuellement par candidat ñun ñëpp ànd def recours collectif mais tamit daa ñu ànd xeex ka tamit également parce que tamit processus électoral li ci sénégalais yi am yëpp ça a été acquis sur la base de lutte épique yi nga xamante ni on les a menées dans ce pays